أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه bokki jullit yi ñuy déglu bokki taalibe yi gannaaw nu sant yàlla julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam muy salaamu aleykum wa baax daje gi ñuy dajawaat ak yéen ci barab bu sell bu màgg bii di lenn ci ëtti këri sëñ te Cheikh Mouhamadul Moustapha nekk fi jëwrinam di premier xalifaam noonu itam la ñuy nuyoo ko siyaar ci ko fi nekkal di sëñ Ahmadul Mokhtar ak jëwrinam sëriñ Cheikh Mbacke Madina gannaaw bu nu jooyalee ñaan gi ak siyaar bi ci Cheikh Mouhamadul Muntaqa ayadahu laahu wa nasra di ñaan yàlla dëgëral ko lool te yàggal ko fi barkat Cheikhul Xadim bokk yi nag xam ngeen ne jotaay bi bu ngeen ko gisee war ngeen a xam ne bisub jàmbaar ju mag ji di bisub Sayxul Xadiim moo dëgmal ñu am mbégte ci di ko waajal ci waajtaayu xam-xam ak waajtaayu xamle kan mooy jëwrinam ji nga xam ne moo ko njëkk wuutu moo ko njëkk defal ak bëggam ci kaw suuf gannaaw ba mu fi bàyyi ko di Cheikh Mouhamadul Moustapha di ko def nag ci njëgalal kilifa yi ak ci ndigalal lañ na saqafiya bi nga xam ne moo nekk ci diwaanul muridina te sëriñ Ahmadou Ndiaye di coordinateur bi tey nag ñi ngi jotaayoo ak oustaz Seyd Fallou Ndiaye ak sëriñ Bàcc Silla ñu war a waxtaane lenn ci jëmm ju màgg jooju Cheikh Mouhamadul Moustapha euh, bu ko defee dañuy njëkk ci oustaz sëriñ Fallou Ndiaye xam naa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 mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi ñuy seetaan ak fu ñu mën a nekk di ñu seetaan ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaare bu baax a baax tey jiital ci nuyoo boobu ak siyaar bi sëriñ Muhammadin al Muntaqa di ñaan yàlla subhaanahu wa yàggal ko lool ci jataay bii mu tooge ak mbooleem taalibe yépp di ko ñaanal itam jëwriñu cheikh Mouhamadul Moustapha ak mboolem ñi topp ci ginnaawam muy sëñ Ahmadul Muxtaar ak mboolem njabootu cheikh Mouhamadul Moustapha gépp waaye di ko ñaanal taalibe yépp kon cheikh Bachir xam naa dañ lay delloo kàddu gi rek ba mu del ci incha allah. bisimilah sëñ Bàcc yéen nga nuyoo. inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'iinu wa nastaghfiru wa na'uudu billahi min shururi anfusina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 di ñaan sunu borom subhanahu wa mu wàcce ci réew mi taw bi yërmande waaye di ñaanal Serigne Mountakha Bachir eh, di ñaan Serigne Ahmadul Mukhtar mi fi toog toogaayu Serigne Mouhamadul Moustapha eh, yéene ji mu am ci eh, toolub lislaam bi mu defe ko nu kawe njortam di. Eh, fas yéene dugg ci eh, tomb yi nga xam ne moom lañ fi fas yéene waxtaane bismillah sëriñ bi jërëjëf sëñ Bàcc jërëjëf Oustaz Fallou Ndiaye Oustaz Fallou dañuy waxtaanee jëmm joo xam ni <clears throat> ay jëfam dafa rëy lool ci lislaam waaye rëy lool ci yoon wi muy kan mooy Cheikh Mouhamadul Moustapha doonoon jëmm joo xam ni sëriñ Touba doyloo gi mu ko doyloo woon ci gannaawam ak mboolem lu ko santoon ak lu mu ko digaloon lépp matale na ko ci loolu nag ngir ñu waxtaane mooy kan fan la ganee jamono fan la jànge loolu Oustaz moom lañ ne muy sama première laaj ak yow ci jëmu ci sellu jooju Cheikh Mahamadou Moustapha jërëjëf Cheikh Mahamadou Bachir euh, ni nga ko waxee muy Cheikh Mouhamadul Moustapha dafa doon jëmm joo xam ne faw histoire bindal ko ay ligne yu am solo ndax taxawaay bu màgg bi nga xam ne moom la taxawoon ci nekkuk Sëriñ Tuba waaye ginnaaw nekkuk Sëriñ Tuba Cheikh Mouhamadul Moussa nag suñuy tudde fan la gane jamono dañ barkeelu rekk ci li nga xam ne moom la Sëriñ Tuuba defoon ca mawlidu nabi sallallahu alayhi wa ndax am solo am solo moo tax ba sëriñ bi tudd ko mawliduhu mu mubarakum muxtaramu taxdimuhu yanxatimu ala sawi taqaddumi mu mel ni koo xam ne su amutoon jamono jafe-jafe yam nekk du deñ benn yoon kon jaadu na kooko ñu fàttali ne amam googa moo tax li xew-xew waaye ku nekk xam na ne ginnaaw xadiimal Moustapha su fekkoon ne bàyyiwu fi ku mate ni Cheikh Moustapha yi dara du jag moom nag mi ngi gane jamono ci Daaru Salaam ci ñiy histoire di ko bind di ko taarixal am na ci ñu wax ne ci njaalbeen ak muharram la muy benn fanu muharram ci 1306 dëppoog 1888 fekk booba sëriñ bi génn googu mu daan génn nekk ci xalawaatam yooyu ci la nekkoon di wër pàkk bi nga xam ne mooy Tuuba ñu wax ne bi mu ganee jamono dañ koo wër maam Cerno Ibra Faati moo yónnee ci moom ku ñuy wax sëñ ma Samba Faati bu Buso ngir mu xebaar ko ne ko kat gan am na ca kër ga am na ñu wax leneen wax ne ku ñuy wax xonn ndooy la maam Cerno yónni ci moom ngir mu wax ko ne ko am na gan ci kër ga waaye ñuy bind histoire itam am na ñu wax ne ñetteelu fan muharram mu yow tamxarit ci la gane jamono nganale ga doon fukkeelu fan ba loola bokk na ci li sëñ Moussa indi moom loolu la indi waaye suñu demee ci irwa u nadim dañuy gis ne sëñ Mouhamad Lamine Diop Dagana wax na ne sëriñ Fàllu moom moo ko wax ne ko cheikh Mouhamadul Moustapha fukki fan ak benn ci weeru tamxarit wi la gane jamono moom nag mu gane jamono ci kazu rajabin muy ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru rajab di ñaar fukki guddi ak juróom ñaar ci daaru salaam mit nag la gane jamono waaye gane jamonoom gii nag tax lépp loo xam ne sëriñ bi bëggan na ko mu am ko ndax wax nañ ne ci bis bii la yàlla dogal ci moom pàkkab mu gis ko ci 1888 bii loolu nag bi mu amee mu jaar fa mu war a jaar fépp ba yàlla dogal ci moom nag mu war a àgg ci dalum njàng ni ko doomi soxna yépp di defee ci la tàmbalee nag dalum njàng ci loxoy xadimal Mustafa nga xam ne moom mi waa waajuram moom moo ko dalal jàng moom ak Cheikh Mouhamadinil Fadil ak sëriñ Omar Mbacke gelongal wax nañ ne bis bi mu leen di dalal jàng mi ngi leen dalale jàng fii ci kër sëñ Chouaib bëgg fi ñuy wax daaru naar nga xam ne naaru gànnaar yi nga xam ne ñoo daan bàyyi ko Mauritanie di ñëw di seet sëriñ bi daf leen daan dalal foofa loola taxan ba bokk yi tuddee ko kërug naar yi nee nañ foofa la leen dalale jàng ñoom ñett ñoo ñi sëriñ bi nag nekk ak ñoom foofa di leen jàngal di leen jàngal ba ni ñu àggee suratu yaasin nga xam ne rubu bi suñu xaajee alquran di ñeenti xaaj benn bi sëriñ bi xamal na leen ko waaye bi yàlla dogalee nag tukkim bii nga xam ne moom la war a dem ci géej gi mu di ko waajal tax mu bàyyi ko Touba dem nag Daaru Xuddus Jolof dafa ànd ak Cheikh Mouhamadul Moustapha ànd ak Cheikh Mouhamadul Fadil Serigne Omar moom mu jox ko sëriñ Dame Abdourahmane Lo ngir moom mu continuer foofu àlluwaam waaye bi ñu demee nag ba nattu bi wàcc ci moom sëriñ bi te mooy fexe nañ ba jaxase ko ak tubaab bi tubaab yi war koo jëlee nag ci réew mi ngir exiler ko yóbbu ko Gabon dafa woon ak maam Thierno Ibra Fati dénk ko Cheikh Mohamadul Moussa dénk ko itam Cheikh Mohamadul Fadal xamal ko ne ko li ma bëgg dey ci ñoom mooy nga yar leen jàngal leen waaye fi ma gënal ci nga yar leen jàngal leen mooy su ma nee nekk Touba na ko nekk su fekkee nag am nga ciy jafe-jafe ba mënatut nekk Touba foo ko defee ci réew mi rek baax na wax ko ne ko nag maa ngi lay sartal nag ci yar bi nga leen di yar ak ni nga leen di yore na nga góor-góorlu ci ñoom ba bu ñu jagam bu ñu saalañ te bu ñu buun bu ñu jaga jagam ci olof yi nga xam ne moom tey wala sax duy olof far baatu tubaab la ndax xale yu baree bari soo leen waxee jagam xamuñ ko mooy bu ñu salte bu ñu salte bu ñu saalañ mooy bu ñu bàyyi seen bopp mu sëq kawar lool ba kenn du xam lu muy nuru bu ñu buun mooy bu ñu gëj a jëfandikoo ndawal kon ñett yi nga xam ne bu ci nekk yitte la ju rëy a joo xam ne maam Cerno Ibra Faati sàmmal na ko Sëriñ Tuubaa ci njabootam gi doog a wëlbatiku nag itte jëleen gën rëy mooy fexe ba ñu jàng alquran ba mokkal ko loolu nag tax ba maam Thierno Ibra Fati yëkkatiwaat ko boole ko Serigne Fallou jox ko sëñ Dame Abdourahmane Lo foofa la ñu nekk ba mokkal fa alquran wax nañu ne Cheikh Mouhamadul Moustapha mi ngi mokkal alquran ci fukki atam nga xam ne loola yombut te daaray booba it bokkut ak daaray internat yi tey jii nga xam ne njàng mi yomb na lool ndax booba taxani ngay def soo taxanee ba ñëw saw say nga daane ko fas yéene koo taal su guddee tàkk-tàkk yooyu ci ngay niit li ngay jàng ba mën caa xam dara kon booba jafe na lool ñaareel ba itam tànk-tànki dund aman lool nag ba jafe ndax am na ci ku nettali ne sëriñ Faal anhu ndaam am nay jamono bu demee ba yàlla dogal mu am waruwaay di jaar ndaam am na barab boobu saa fa tolluwaan rek day fuuyu ba mu laaj bañ ko laajee loola lu ko waral dafa wax ne mettit wu mu daj foofa rek moo tax barab ba bëggatu koo xool sax nga xam ne kon lu jafe woon la te tiit mu teel a mokkal alquran ci fukki atam ginnaaw bi nga xamee ne it nag mokkal na alquran maam Cerno Ibra Faati da koo jël ngir jàngal ko njàngum nag xam-xamu sharia mu daan xëy su xëyee maam Cerno Ibra Faati yebal ko ci sëñ Maam Mor Jaara mu jàngi fa su ngoonee maam Cerno Ibra Faati tëralal ko kon xam naa ci tënk rek sëriñ Bachir dañuy tënk foofu ba kàddu gi del si incha allah. jërëjëf euh, Oustaz Fallou Ndiaye kon waxal nga nu gane jamono Cheikh Mouhamadul Moustapha ci weeru Muharram ñii ne ñetti fan yi ñii ne fukki fan yi ak benn waaye arab yi dañ ne taarixu lay sama kaana kon wax nga ñu itam ne Serigne Touba moo ko dalal alquran maam Thierno. moo ko àggaleel ak sëñ daam Abdourahman ci diggan sëñ maam Mor Jaara ak sëñ daam ak euh, maam Thierno ci la jàngi xam-xam kon loolu itam mooy lu mënta ñàkk ci doomi soxna ndax sëñ Tuubaa moo ne ñetti sëriñ moo am mooy seexu tahlim seexu tarbiya ak seexu tarqiya kon jaar na ci seexu tahlim kon Oustaz bàcc si la sëñ Fallou Ndiaye wax na la ci tàmbalik Cheikh Mouhamadul Moustapha mi ngi mokkal alquran ci fukki atam xattan wa tilawatan jàng xam-xam ba géeju ci sëriñ bi itam bi mu ñibbisee ànd ak moom delluwaat ganaar mu continuer xam-xamam waaye tërbiya mënta ñàkk ci nit ku nar a yilif mbooloo léegi tarbiyatu ruux yi bu Cheikh Mahamadul Moustapha moom laa bëgg nga indil ma ko ngir boo gisee yii ñu di ko indi jamono lii ci xew léegi dañ koo xamutoon te li ci lépp ñàkkub yar la léegi nag bu ko defee yarab Cheikh Mahamadul Moustapha ak ku ni ku war a wuutu Serigne Touba nuñ ko waajale ci ab yar ban façon la woon ndax kenn ku nekk aajowa nga ko ndax dem mët na ñàkk ku sañoon booy dem sa doom wuutu la te mate ko kon bisimilah sëñ bàcc أعوذ بالله السميع bi ci kàddu gu leer gu am solo gi eh, wax na lenn ci ganek jamono ak Serigne Mouhamadul Moustapha akum njàngam mu mel ne tomb bi nga xam ne ci lañu ñu war a addu jëmale mooy lu jëm ci tarbiyam mooy manhaju tarbiya ruuxiya inda cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim méthode bi nga xam ne moom la sëriñ Mouhamadul Moustapha jëloon ci tarbiya wuutu sëriñ bi ci ab liggéeyam ci tarbiya mu mel ne nag loolu buñ ko waxee day doon tomb bu yaatu moo tax ñu gën koo gàttal ci at tarbiya alxadimiya sëriñ Mouhamadul Moustapha wan laaj ci la bay ci e, yarub sëriñ Touba tudde ko yarub sëriñ Touba yarub sëriñ Touba tarbiya alxadimiya moom des ko ca yar ba pare mu door caa mën a yare waaye la Cheikh Mahmoud doon wax rek sunu bàyyi na jàngal nanu ba nu ne ar mu yar nu ba ñu ne nër tarbiya ruuxiya nag muy yarub ruux wala tarbiya xaddiimiya mu yarub sëriñ tubaab bi nga xam ne moom la sëriñ bi yaroon njabootuk boppam yaroon ko mag ñi muy taalibe yu mag yi e dañ ko caa jaarale ginnaaw boobu mu door caa mën a jaarale ay nit sos daara tarbiya yu bari moom Cheikh Mamadou Moustapha waaye eh, Serigne lu wax na eh, ku ne xam ne ne Serigne Mahamadou Moustapha ab tarbiyaam la ca ëpp ginnaaw njàng maag fañ ko jaarale ma nga tàmbalee daanaka eh, ci liñ ci nettali ci yéen Jolof mooy waxtu wi nga xamee ne mook Cheikh Moudou Fadala fa nekk ak sëñ Omar ak ñeneen ci Eh, njaboot geek mag ñi muy sol naawal di sëqal bopp bi di yanu ay say matt di taxan di indi mel ne eh, dongo yu mel ne Cheikh Ibra eh, ak la ñu nettali naan ba ko sëriñ bi woowee mu ñëw mu ne ko lii ngay def loo ci jublu mu ne ko bëgg niru murit yi bëgg niru taalibe yi mu ne ko am na leneen luñ la tànnal lu dul lii. loolu lañ ma tànnal. muy eh, yarub sunna yar boo xam ne eh, beneen façon la boo xam ne xaw naa am ak ak woroo eh, méthode boobu wala melokaan woowu ca loola la yaru jaar ca te tarbiyatu ruuxiya du dara lu may xam-xam bi ñu la jàngal muy alquran ak sunna nga fexe ko jëfe loolu la ñuy wax tazkiyatu nafs cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana nettali na ko ci irwa ud nadim ne bokk na ci wadaifu suyuqu tarbiya fonction wala liggéey yi nga xam ne sëriñu tarbiya yi moom lañu ñu war a liggéey ci taalibe yi mooy fexe ba murid yi ñu warlul ci ñoom ay liggéey liggéey ba ci jiitu mooy jàng ak jàngale jàng alquran ba wattu ko comme ni ko sëñ bi waxe léegi E, jàng xam-xamu diine fiq tawxiid ak tasawuf jàng xadis yonent bi sallallahu wa sallam ba pare jëfe ko di ko jàngale ak di ko jëfe muy li ñuy wax taallum wa taalim yar leen ci adkaar muy xeeti wirdi dikkar ak liggéey loo leen ak joxe loo leen addiya ginnaaw ba nga xamee ne ñi ngi sos seen mbir ci bëgg sëriñ bi mbëggeel gu dëggu su ko defee sëriñu tarbiya yooyu duñu tàqalikook taalibe yooyu lu may dañ leen a wan seen ay bopp seen ay bi bakkan mooy amraadul xulub feebar yi nga xam ne mooy dal xol ni yaram di amee ay tawat ay jàngoora ñu di ko yóbbu ci médecin moderne bii ko xam ni la xol di amee ay tawat iñaan rëy naw jëf eh, naw sa bopp eh, yu noonu moom la seexu tarbiya bi di jéem a génne ci xolub taalibe bi kon du ñu tàqalikook taalibe bi lu may dañ koo wan ayib bi boppam jàngal ko nu muy def ba laabal ayib yooyu ba génne ko ci xolob ba mu set cheikh mamadul moustapha ci yoon woowu la ko sëriñ tubaa jaarale moo tax ginnaaw bu mu mën a sos daaray tarbiya ñaar fukki daara ak juróom ci ci gën a siiw ba ca jiitu ca taayif eh, bu sëñ ceerno mbàkke ca taayif ba ca mujj eh, wala ya ca mujj ci tartiib eh, muy eh, bu sëñ Raïs loo mu sëñ Siré Lo mu nga xam ne ñaar fukki daara yi tarbiya ndax ku wax tarbiya wutal ko maxal wutal ko bërëb bërëb ba nag moom lañ daan tudde daara yi tarbiya loolu ci la wuutu sëriñ bi xam naa dinaa ci ñëw ci gën a yaatal waaye xulaasatu tazkiyatu nafs rek buñ doon tënk sellal bakkan mooy lan dëgg-dëgg mooy melokaan yi nga xam ne dañ koo ŋàññi muy melokaan yi yéefar di melokaani yi naafiq nan lañuy ñuy fexee ba dindi ko ci jullit bi ba mu set wi ci ñu teg ko ne teg ca melokaani jullit melokaani ahlul imaan ñi nga xam ne ñoo nar a texe ëllëg sëriñ Tuubaa loolu la def ci mag ñi loolu mooy tazkiyatu nafs sellal bakkan tasfiya ko tarqiya ko yéege ko ci yàlla nit ki mujj nekk nitu yàlla sëñ Moussa da ko wuutu ca liggéey boobee wuutin wu yaato yaato yaato yaatu xam naa ca la ñuy ñëwaat bu ñu ñëwee incha allah ndax e, fi ñu ko jaarale foofa la jaarale nit ñi kon bu ñu nee manhaju tarbiya ar ruuxiya inda Cheikh Mahmoud Moussa mooy manhaju tarbiya al xadimiya mooy méthode yariinu Serigne Touba woo manhaj booba ca lañ ko jaarale ñim yar ñëpp it la leen jaarale. ba ni mu sosee ay daara tarbiyaam ak dëkk yi nga xam ne moom la sos ngir jëmmal loola muy fukki dëkk ak juróom-ñeent yoo xam ne bu ci nekk daara yi may wax ca la tasaaro incha allah dañ ko gën a yaatal ñu delloo la kàddu gi foofu. jërëjëf sëñ Bàcc. ci euh, li nga indi ci tarbiyab Cheikh Mouhamadul Moustapha mu mel ni sëriñ bi dafa wanoon mag ñi yàlla ñu xam ko euh, dégg ko lool te xam ni ñu toppee sëriñ bi ndax ab yar mooy tax nga mën a jariñu ci sëriñ bi. Euh, ci loolu nag moo taxoon bi tubaab yi wooloo Cheikh Mouhamadul Moustapha ci mujjug sëriñ bi xamal ko ne sëriñ bi gis nañ ne fami bi mbokk liñ daan weesu juróom-ñaar fukki at yu tegal bariwut te sëriñ bi boobu juróom-ñaar fukki at daanaka mën na am kàddu yuñ ko wax xamal ko ne ko bi fi bàyyi koo am na neneen nañ ko waajale nu bokkut ak bëgguk sëriñ bi sëñ Moustapha ne leen waa baax na bi mu amee diir Cheikhul Khadim woolu ko lam ko laaj mooy dañaa ne ko damaa dégg ne naankati saxar yi woolu woon nañ la mu ne ko waaw mu laaj ko lu la wax mu am kersak ci wax ko ku toll ni Sëñ Tuubaa nga naan ko duñ boo fi bàyyi ko loolu bokk na ci ab yar xam ni ñu sëñ bi mu mel ni mënu caa jaar sëñ bi ne ko am nga ndigalal wax ma ko mu leeral ko li tubaab bi wax mu ne ko mostafaa mu ne ko Mbàkke mu ne ko tubaab bi takk na ma sëf ma war rek a ci des ne ko yii ma la sant boo ma ko defalee ma jàllale leen ci seen càmmoñ loolu seen ndeyjoor du ko jeexal mooy ma jóge fi nga yóbbu moo tubaate ba xaddam taxawul ma sama dëkk bii di Tuubaa ba mu nekk ci loxo yi ñu ma fi nekkal tabaxal ma fa jumaa tabaxal ma taxawul ma njaboot gi ba duñ jooy baay bis bi ma ñëwee Tuubaa bu delsee nga wol ma buru yëpp ñu daje fi Cheikh Moustapha Maxtu mi mu daan takk ndénkaani juróomi ndénkaani Sëñ Tuubaa yooyu la ci daan def loolu nag bokk yi ku ñërut mënoo ko da ngay boole ab yar ak xam-xam aku fit akum xel sëñ Modou Sa yëpp da ci géej woon mu mel ni nag yooyu ko sëñ Tuubaa santoon santoon yëpp réussir na ko li ko tax réussir nag sëñ Tuubaa dafa seetlu ab yaram ba xam ne mën na ko moo tax mu sant ko kon dama ne màggal gi bu fekkoon ne daje gi sëriñ tubaa daje ak boroomam te mu waxoon ne bis yi gën ci samay bis mooy bi ma daje sama borom képp sëñ Modou def gim jëfi ndigalal waajuram ba jar na daje fi di màggal kon nag Cheikh Mahamadul Moustapha daana wax ne bu Touba dee Touba mooma waaye loolu li ko ko may mooy ab tërbiye bu teel ci moom ak xam-xam kon sëñ Fallou Ndiaye damay dikk ak yow ci minute yu néew gannaaw sëñ Touba lan mooy njëlbeenug liggéeyug sëñ Modou Moustapha ci gannaaw bu mu indi waajuram a Touba ba noppi. Cheikh Mouhamadul Bachir xam naa dina dinañu delsiwaat tuuti rek ci fi ñu doon waxee muy xam-xam bi ndax suñ la waxee ne diw jàng na am na xam-xam def na nangam il fallait jàpp naa ne ñu mën a gis lu koy tax mu am seere ba ñu mën a wax ne borom xam-xam la wax nga ci sa biir wax ne alxuraan da ko mokkal daan ko bind dëddu ko turu kamaalam wi ci loolu la ko fàggoo muy ñeent fukki kaamil ñaar yoo xam ne bind na ko ci ab loxoom jébbal ko sëriñ Tuubaa ba bi sëriñ bi nekkee ci géej gi ab kaamilam fekk na ko fa kon loolu da lay tegtale na ci su dee wàllu alxuraan moom kenn dabu ko ci waaye ñi nekkan ak sëriñ Tuubaa ñu bari dañoo seere ci moom amu xam-xamam rawatina Cheikh Ibrahima Diop al-Mashari bi sëriñ bi fàddoo rek lu mu wax laxad kaada rawdul ilmi an yatahashama wa kaada binaa'ul majdi an yatahaddama nee na tuuti kon tuuti kon jataayeb xam-xam jeex far tey tuuti kon li ñuy wax màggaay fondement ba raaf ndax màbb na lu tax nag loola amut mooy ata Moustapha badrul buduri mujaddada bi Seex Muhammadul Moustapha ñëwee ci la ñëpp xame ne kat lañu jàppal ne dem na tey dikk na kon loolu seere la su leer nañ ñi ci mag ñooñ ci topp saa yu jataayoo woon ak mbooloo mi xutbaam yi mu doon def nga xam ne mënoo cee yér benn xutba ba teg sa loxo fenn ne fii kat fotu naxwu am na ci wala arut am na ci wala indi na baat bi fu mu ko wër na indi fu mu ko jar wërta na nekk fii walla nangam loola dalay firndeel dëgg dëggi xam-xamu Cheikh Mouhamadinil Moustapha waaye ñi nga xam ne ay bokki naar lañu woon daan fekk sëriñ bi ngir nattu ko wax moom direct ci saasa rek mu tontu ci saasa loola day firndeel xam-xamu Cheikh Mouhamadoul Moustapha mën nañ ci cité Cheikh Sidiya Baba bi ko sëriñ bi yónnee ne ko demal gàttandul ma ko ndar bi mu ëgsee lu ko Cheikh Sidiya Baba wax ahlan bi wafdin jaa min njaarim wa karamatan li xudumihi min xaadim xibbun taxaadama adana bi liqaa'ihi xukmu alqadaati ala hawan mutaqaadimi ba bayit ya jeex mais li lay wan xam-xamu Cheikh Modou Moussa mooy dafa daaneel rek mu àddu moom itam ci baxar bi mu ko woyee ak wax ji mu ko wax mu delloo ko lam ko wax ci saas ne ko wa xalaadatun xullittuha maa rasaat qarasaatu naadimiha qariatu naadimin xallittuha duna al anaami karamatan wa gadawtu arfulu fi siyaabil makaarimi nga gis ne ki ñu wax ne arab la muy Cheikh Sidiya bayit yi mu wax ak yi Cheikh Mouhamadul Moustapha wax soo ko peesee da jàpp ne sax li Cheikh Mouhamadul Moustapha wax moo gën a dëgër ci arab ya li Cheikh Sidiya Baba wax kon loola da wane ba capacité Cheikh Mamadou Moustapha ci xam-xam tey lu bëri la way lu bëri la bind itam nag moo xam ñaan yàlla la moo xam leneen waaye suñu dikkee nag ci question bi nga laaj léegi muy ndénkaan yi nga xam ne sëriñ bi dénkan na ko ko ne ko defal ma ko te mu jaralan ko muy jël maxtumbe di ko yor ngir bañ a fàtte ndénkaan yooyu di ko ci dugal ginnaaw bi sëriñ bi demee rek ndénkaan li ci gën a màgg Serigne Bachir mooy taxawal ko jumaay tubaay yi ca loola nag la sooboo rek dugg ca raay ba kon dañuy joxewaat kàddu gi incha allah ba mu. macha allah jërëjëf sëñ Fallou Ndiaye ci seer yu mag yooyu nga indi euh, tarbiya boobu ñu ko xam boobu ñeent fukki kaamil yi nga wax benn bu nekk am mbay la àndal ndax buñ tàmbalee tàmbali na kaamil bi bu àggee mu boole ko mbay mi yot ko Serigne Touba Njaareem ca la waxee ne nag liggéey baax na lool nag bi sëñ bi demee bi sëñ bi demee rek maam Thierno bi ñu ko dencee ba ñëw dafa wax mag ñi ne leen sëriñ tubaa ab jullit la woon te ab jullit bu fa jege dañ koy miraas sëñ Mor Saalam ca teg kër lu ne mën naa taxaw ba mu des njël la njëli nañ ko jaay mu jënd ko mu jënd njëlli kër gi dox na mu daan dox nee na li ci kër gi bi mu jeexee nee na am amoon na sàq fukki fukk sàq yoo xam ne ay fukk la xam naa gone yi bay xamuñu ko mooy sàq yi gën a mag ci sàq yi juróom daa moom juróom-ñaar fukk am yoroon na fukki fi ku tundooti sàq yooyu nee na muñ bojj ba mu jeex rek ñu andiwaat beneen te booba ñeen fukki at nañ fàttaliku ne ci la sëñ Mounou Sa wuutoo Seexul Seexul Xadim ñi nga xam ne sëñ Tuubaa leen yoroon ñuy magi bar sàq yi mu def leen foo xam ne dara dootu leen war njabootu sëñ Tuubaa gi mu fi bàyyoon mu yar leen yarin woo xam ne xàmme woo ñim yar ak ñi sëñ Tuubaa yar loolu kon yar bu mat mënu ko mënu ko weesu titre foncier le 11 août 1930 mu joxe 5 millions ñu titre foncier Touba ba nga xam ne ndigalam rek moo fi ak ku ko fi nekk mooy priorité bi njëkk nga xam ne def na ko gannaaw Serigne tubaa te loolu ku ñërut jàngaluñ la mënoo ko Oustaz Fallou kon wane xam-xamam feeñ na foofu maanaam xam-xamam bu bari bi ne ci moom ci jëfam lañ ko xamee gannaaw Serigne waxuma la bi fi nekkee waaye mat di mu wane te nañu bàyyi xel ci ne bi muy wuutu Serigne Touba ñeen fukki at la am bi muy sanc tundooti ñaar fukki at ak juróom-ñett la am tundooti ak Touba Euh, dëkk bi Bombali ci nekku Serigne Touba la ko sanc kon booba euh, bari na waxambaar yoo xam ni ñéeg jafe na leen si waxuma la ak sancub dëkk kon kooku daal kamaan la ku mat la ku ñu war la kon sëñ bàcc sëñ Modou Moussa biñ koy tërbiya ndax nit buy tërbiyee njabootam ngir bu fi jógee li fi bàyyi woon dara bañ faa raaf ndax loo bari bari njaboot boo leen jàngalut yëroo leen boo fi jógee lañ nekkoon xalfun la ñu doon waaye duñ doon xalifa xalfun ak xalifa nag dañu niroo ci bokkuñu xalifa mooy koo xam ne daan def la nga daan def di wax la nga daan wax te dara du ci wuute kon nag li tax sëñ bi doon ko yar gannaaw sëriñ bi dégg nga fi oustaz Fallou taxawee léegi ab yaram nan lañ ko mën a jàngate ci gannaaw sëriñ bi bi nga xamante ne bi def na ndigal yim ko santoon ba noppi jëf euh, sëñ bi xam na dama naan sëriñ Mouhamadul Moustapha bi ñu ko yaree ba pare tomb bi ñu gënoon a yitteel mooy mooy nan la yare moom a tarbiyatul xaddiimiya lan ban rôle la ci def maanaam bi mu dikkee moom lan la ci sof lan la ci dolli lan la ci dolli e, mooy fa ñu ko jaarale kon jumtukaay yi nga xam ne ahlu tasawuf dañoo leeral ne kuy def tarbiya ruuxiya jumtukaay yi ngay jëfandikoo jumtukaay yooyu bu ñu sañoon Eh, ci la ñuy ñëw ndax jumtukaay yooyu wax naa ne mooy ay teggin Sëriñ Tuubaa wax na ko fa kathratul ilmi bi geyri adabi jaalibatun ila al ada wa taabi eh, xam-xam bu bari bu àndut ki teggiin day xëcc nit ki jëme ko ci ay lor ak coono moo tax xam-xam bi ñu def ci moom bi eh, sëñ bi doon wax léegi nga xam ne moom la ko Sëriñ Tuubaa yare ñu jàngal ko ba mu ne ar xam-xam booba mu dikk jëfe ko jëfe gam ko jëfe nag e, moo indi jeexiti e, daarey tarbiya yi mu sos yëpp comme ni nga ko waxee daare ji mu njëkk a sos wala dëkk bi mu njëkk sos ci nekkuk sëñ Tuubaa muy tindoo deeg e, ba ci dëkk yooyu yëpp nga xam ne moom la sos ginnaaw sëñ Tuubaa da ngay gis ne lam ci jublu woon mooy àggale liggéeyub sëñ Tuubaa bi muy tarbiyab sëriñ Tuubaa bi te tarbiyab Serigne Touba wala tarbiyab Serigne Modou Moustapha mooy tarbiyab Serigne Touba bi Serigne Touba mooy tarbiyab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi dafa doon tarbiya ci xeet yu wuute wuute dafa woo ak Fatima ne leen bu leen bàyyi julli guddi bis bu set nga xam ne guddi gi dañu koy julli daanaka ba mu jeex te booba Aïcha bu yonent bi di def xiyaamu layli Aïcha ma nga tëdd ca kanamam nee na léeg buy su jot day àndale samay tànk Aïcha mi ngi ko tarbiya ci xam-xam mokkalay ahadis nga xam ne bokk na ci ñi ëpp lu ñu soloo ci ahadis ginnaaw e ñoom Abu Hurayra ak ñooñu bu ñuy tudd jigéen ñi moom lañ ciy jiital nga xam ne bu leen di tarbiya ci façon yu wuute wuute leen tarbiya kii da koy tarbiya ci tajwial ko xiifal ko kii mu di ko tarbiya ci jàng alquran lu bari kii mu di ko tarbiya ci julli guddi namat boobu wala exemple boobu la Cheikh Mouhamadul Moustapha jëloon moomet wax naa la e daaray tarbiya yi mu sos nga xam ne mat na ñaar fukki daara ak juróom dëkk yi di fukki dëkk ak juróom-ñeent am ci yoo xam ne bi mu koy def bi mu koy sos Serigne Touba ngi fi loola moom dara taxu koo jóg dëkk yi dëkk yu ci bari daara tarbiya yu ci bari da leen tar da da ko faa def ngir liggéey bokk na ci li taxawal jumaa ji yaakaar naa tindoo deeg baylaak taayifak bay lu ñu indi ci jumaa ji ngir taxawal néegub yàlla bi nga xam njariñ li ci des ci nit ñi lay dellu njariñ lay jóge ca dëkk yooyu mu sos yëpp ci nit ñi lay dellu kon loola lu am am solo la jaar ci méthode walla yoon wi nga xam ne cheikhu tarbiya ca lay jaar alquran jàngal nanu cheikhu eh, tarbiya wattabi sabila man anaba ilayya toppal yoonu ki nga xam ne eh, moo ma wuutu wala eh, moo taxaw mooy jëf mooy liggéey sama liggéey kon loola ab liggéey bu amam solo la. jërëjëf sëñ Bàcc xam naa man de li ma jaaxal ci Cheikh Mouhamadul Moustapha mooy waxtu mi doon xalifab sëñ Tuubaa booba du mag te moo taxawu woon ñi sëñ bi bàyyi woon moo pexe ba seex bu fi jógee mbooloo di topp sab taaw bokk na ci njëriñ mu andil murid yi taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp it dafa jàppoon ne moo leen war a dundal ba tax na bi ko amee ku ñëw di ko yërëm ci yet bi ngir at yu néew yi daf ne ko loo ma ciy dimbalee mu mel ne daa gàgg mu ne ku gàgg bëgg na koo gàggante mu ne ko yoral ma sa bopp ak sa njaboot Baay Mor Seck ci Taayif dafa bay ba noppi de desiwut lu may kayitu ñaar fukk rus koo jox sëriñ bi àddiya nga xeeb ko ndax nawet bi dafa xaw a doy waar mujj mu xalaat rek ne na gëdd dem bi mu demee nuyu Cheikh Mouhamadul Moustapha jox ko kayitu ñaar fukki ne ko Mbàkke day àddiya ji dama koo xeeb lool mu ne ko Mor fay nga fay nga fay nga seko mu ne ko waaw mu ne ko fay nga lemp mu ne ko waaw mu ne ko kër gi am na lu ñu mos mu ne ko waaw mu ne ko wutal nga leen lu ñu solee mu ko waaw mu ne ko loolu boo ko defutoon man la war kon xeeb gi ëpp naa def boo ko defati kon foofu la tolloon sanc na ab dëkk doomi Serigne tubaa jàngi ba ñëw amutub dëkk mu jox ko ko muy Touba Kayal bi sëñ euh, Mortala jàngi ba ñëw bokk ci ñi njaboot gu ndaw gu sëñ Touba 1932 bi mu jàngee ba ñëw dafa jël Touba Kayal jox ko góor Madina jox yóbbu fa sëñ Mbàkke Madina kabbu gay noonu la ko joxoon sëñ Ablaat këram gi ci mbir noonu la ko joxoon sëñ Saliou kon njabootu sëñ Touba gi ci boppam matal na la ko waajuram ba waxoon ku nekk fa la waajur waroon taxaw taxaw na la moo tax sëñ daan wax ne lépp lu leen naqare ci man Cheikh Moustapha ba naqare ci man rek Cheikh Moustapha ci loolu yi nag ci la taxaw ba fondement jumaa ji woote bi wooteel ko bii kon na mission bi sëñ moo tax bi ko mel ne mag nuyoo ne ko mu ne ko na ngeen def mu ne ko ña nga rek mu ne ko yënga Touba mu ne ko ña nga Touba rek sant bu baax mu ne ko Touba de bu dee Touba mën a bu Touba dee Touba grâce à Cheikh Moustapha bu fi sëñ Touba ñëwutoon moog dëkk yëpp a yem bi fi jumaa ji néewtul moom dëkk yëpp a yem buñ ko titre foncier wutoon ba nga xam ne ki fiy digle ki moom dëkk bi moo fi sañi ki fi nekk Sëñ Tuubaa moo sañi digle moo dëkk yëpp a yem kon bu Tuubaa dee Tuubaa grâce à Cheikh Moustapha kon sañ Fallou xam naa média day dox ci ay minit te mu mel ne jeexal nañ ñu bëgg nga def sa kàddu yi tàggatoo yu mujj incha allah euh, ñu door a dellusi ci sëñ Bàcc door a tëj nag incha allah. waaw jërëjëf euh, sëriñ Bàcc waaye jërëjëf sëriñ ci euh, kàddu yu am solo yi. xam naa di wàcc sama kàddu rek fii ko sëriñ bàcc nekkoon muy tarbiya mooy ñi sëriñ Tuubaa yar nga xam ne moo leen yaral boppam ba noppi ci soo leen xoolee xool ñi sëriñ Muhammadul Moustapha yaral boppam ba noppi ci doo xàmmee ku ci nekk kan moo la yar loolu rek doy na sëkk sëñ bàcc ci taxaw sëñ Muhammadul ci tarbiya kon ñu ngi taxawal foofu nag di jégalu ñépp xam ne lu ci dëng rek doomu aadama moom matul waaye jub gi rek lañ doon sàkku wasalaamaaleykum wa rahmatullah bisimilah sëñ Ba ci kàddu yi mujj xam na euh, jërëjëf euh, sëñ Bassirou Seck jërëjëf euh, sëñ bi li ma doon wax ci jumtukaay yi nga xam ne moom la Serigne Mouhamadul Moustapha doon tarbiya xam na ci lay tëjee mooy jumtukaay yi Serigne Touba daan tarbiya bokk na ca tuub gu sell bokk na ca wird mais boo demee Taayif fi mu toll ni mu daan tarbiya ay taalibeem ci wird ba tey jii boo demee ca jàkka ja dangay fekk ñu def salaatu na jinaa boo xam ne ci ay tàndarma lañ koy defee te ab kaamil la koy jiitu kon tarbiyew tarbiya cim njàng tarbiya ci wird yooyu daa bokk ci jumtukaay yu ñuy tarbiya bokk na ci jumtukaay ber nit ki ber gee taxoon mu sos daaree tarbiya yu bari yi ak dëkk yu bari yépp lool loolu la ci jublu woon tarbiye leen ci tajwiid xiifal leen tarbiye leen ci sax ci alquran di ko jàng ak xasaayit ak salaatu ala nabi lii mooy eh, jumtukaay yi nga xam ne ku bëgg a tarbiye nit ca nga koy jaarale sëriñ Mamadou Moussa nag daara yi mu sancoon yépp lii lañ fa daan def ak liggéey di yet Cheikhul Khadim léggéey di indi ci jumaa ji ngir taxawal bi yàlla bi waaye liggéey di dundal njaboot gi liggéey di e, joxe addiye ak bépp e, naal boo xam ne Sëriñ Tuubaa bowoon na ko fi ñuy liggéey di ko taxawal e, muy continuer di wéy kon yooyu mooy yi nga xam ne Serigne Mouhamadul Moustapha mooy jumtukaay yi mu yoroon di ci tarbiya njaboot gi ko Serigne Touba bàyyee woon te loolu moo doonoon fi ko Serigne Touba radiallahu taala anhu jaarale kon ñi ngi wàcc foofu suñu kaddu e, di wax ne lu jub ci kaddu yi ci borom bi subhanahu wa lu ci dëng matadik doomu aadama la wala in in uridu illa al islah mastataatu ma tawfiq illa billah alayhi jërëjëf sëñ Bàcc jërëjëf sëñ Fàllu ñu ngi rafetlu kaddu yi bu baax wax ne bis bi nag mi ngi doon guddig ñaar fukkeel ci weeru muharram Cheikh Mahamadul Moustapha waxoon na ne juboo naak boromam ci képp ku fi jant soye ci li neex sama borom fenk la fi nga teqali ko ki bàkkaar kem na sa waajur jure woon bokk yi ñu bari nag màggal gi nu ne dañ ko tudde waaye màggal gi màggal gi Serigne Touba la Cheikh moo ko def ci ndigalam loolu it na ko ñëpp di bàyyi xel Cheikh Mouhamadul Moustapha moo ko def ci ndigal la Serigne Touba tubaa moo ko ko digaloon kon nag ñi ngi ci woo ñëpp di ci seenu ñëpp di ñaan subhanahu wa taala mu dajale ñu teeg tawfiixu Cheikhul Xadim wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.